salaamaaleykum mbokki internet Public TV yi dalee nag jàmm ci tënkum xibaar yi xibaar yi nag dañ koy dooree ak tiis bi nga xam ni moo dal suñu kaw muy génn kàddu nag Cheikh Mansour Cissé moom mi nga xam ne moo nekkoon xalif bu Pire wujju na suñu borom tey ji talaata ji ginnaaw tawat ju metti ji ko daaneloon moom Cheikh Mansour Cissé amoon na lu toll ci juróom benn fukki at ak juróom benn ñu fàttali ni moom mile moo wutu woon Serigne Moustapha Cissé ci atum 2017 ñu wax leneen ñeel beneen tiis muy bu metti bi nga xamante ni moo amoon démb ci guddi jàpp 23 heures ci yoon wi nga xamante ni moo jóge Diourbel jàpp Gossas ci dëkk bi ñuy wax Nébé ñu fàttali ni accident bi lee benn doomu aadama ñàkk na ci bakkanam waaye itam ñett am nañ ci ay gaañu gaañu la ñu mën a jàpp ci site d'information bii di Seneweb moom mile mu ngi xam le ni benn benn camion frigo mu mbëkkante ak benn benn taxi ba chauffeur taxi ba sax dafa ñàkk bakkanam ci saase waaye chauffeur camion ba moom mu ngi en garde à ci brigade bu Diourbel ba tey itam ci xibaar ñuy fàttaliku muy jiyee ju métti joo xamante ni amoon na fii ci Sénégal ay booru 23h bato la moo suuxoon te waaxi Gàmbi lu toll ci ñeenti junni doomi aadama ak ñetti téeméer ñoo ci ñàkkoon seen bakkan suuxu bato la Joola nekk histoire bu gën a métti waaye itam nekk jiyee ji gën a tar euh, fii ci àdduna bi waaye dafa mel ni askanu Sénégal dañu ko fàtte ginnaaw ñeent fukki at ak benn ba léegi. ñu wutali Touba ak Mary Teuw Niane mi nga xam ne démb ci altine ji demoon na ngir janook xalif général des Mourides Mbacké Al Bachir lañ ca mën a jàpp rek mooy moom Mary Teuw lenn rek mo waraloon gisee geeg Serigne Mountakha Mbacké muy principe yi nga xamante ni moo ëmb candidature am bile waaye itam lépp mu teg ko ci diini ak jikko yu baax yi nga xamante ni moom lañ fi suñu maam yu baax yi bàyyee loon ba tey ñoo sant ci politique utali Tivaouane xam ni Aliou Ngouye Ndiaye démb nekkoon na fa waaye dafa lànk ñu du wax ak président Macky Sall waaye itam lànk ba kandaare nangul tontu benn question boo xamante ni moo ci benn bokk yaakaar wala sax ci candidature Amadou Ba bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di Les Échos moom Aliou Ngouye Ndiaye jox na leen dig daje waaye waxul itam benn bis luñ a jàpp rek mooy moom jëwriñ ji nga xamante ni moo fi nekkoon jëwriñu mbay mi rek mooy Aly Ngouille Ndiaye giseen ak Serigne Mbaye Mbaye Sy Abdou ci résidence des Tidianes ngir sàkku ay ñaan ci biir réew mi mbokki internet yi lii la leen indiloon di tënk xibaar yi xam naa kon danañu dox dig daje rek ba beneen yoon incha allah